sunu taalibe si sa di waxaat sama mbégte ak cant gu may sant suñu borom bi mu ma mayee ma ñëwaat fekk la fii ci Touba ci waajal bés bu màgg bi di màggal sëñ Touba taxawal ko ngir sant boromam ak ngir ñu santale ko boromam ma am nag mbégte si di fi fekk motax ñu ñaan yalla ya nga fi yag lool te and ak wër ñu yag di la fi fekk a di la jappalé yit ci sumbu bi nga xamné ne ci dox dox yu am solo lu bari la ma ngi sédé askan wi yépp suñu señ Muntaxa bi ñu yalla bolé ba tay lu jitu may jot ci réew te njaareem la woon ma ñëw fekk ko ci ab fulk mu won ma ab ñeewantel won ma ay ñaan ñaanal ma ba màggal gi jiitu muy toog ci xilaafa gi ma ñëw fii ñu jullee si kër sëñ Touba ci biir néeg bi nga ne ma bul xool nit ñi li ñu def yow sëriñ bi ngay liggéeyal te ku liggéeyal sëriñ bi dana la fay kon man ci loolu rek laa nekk may def Touba xaaruma ci cant xaaruma ci ngërëm ndax la mu wax ci loolu laa nekk te may seede yi ne mosuma dënk benn soxla bu jëm ci moom mi wala ci njabootam benn yoon lépp ci dëkk bi la ak ci askan wi kilifa gu mel noonu nag buñ ko amee dañuy ñaan yàlla mu bàyyi ko fi mu yàgg lool ndox dundam njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci lislaam bi jëriñ la ci yoon bi man de awma sa pay ndax xam naa li ma ëmbal ci yéene xam naa ko boo waxul sax man xam naa fi ma féete te cofeel gi nga am ci man mënuma la ko fay kon ñu en tant que jullit ak taalibe li ñu mën rek mooy ñaan yàlla mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak te xam ni lépp lu ma war a def ci ay bi ma suñu boroom jox ci Touba danaa continuer di ko def ndax wareef laa ko def ci sama bopp liggéeyal sëriñ bi it laa ko def moo tax euh, daray àdduna du tere du changer loolu rawatina sa jëmm ji te nga wane ko mu mot sëkk ah ren nag ñëw nañu si màggal goo xam ne ci digg nawet la am muy nawet bu yàlla def ndox mu bari lool mu ñëw ay jafe-jafe ay ngaañ yu bare waaye ñu sant yàlla ndax bu ñu dem nawet dañuy ñaan yàlla may ñu ndox xëy na dañuy ñaan lor bi bañ a bare waaye dañu toll si àdduna fu changement climatique yi taxe gis ngeen li xew ci réew yëpp Pakistan ci dëkk yu mag yi fu ne ndox maa ngi waame di yàq donc ñun itam am nañu si ay jafe-jafe rawatina dëkk bu mag bu mel ni Touba ak Ndakaaru ñaari dëkk yooyu ñoo gën a am jafe-jafe ci wàllu ndox mi waaw ah, bi tax na bi ma waxee problème mu forage euh, ndox mi amoon di bal di génn ci kër yi ñu defaraat beneen programme ci urgence di def ay forage di ko pomper waaye yàlla def nawet bi tam ñëw fekk ci loolu waaye diggante daaw ren def nañ programme bu am solo bu toll si ñaar fukki milliards ak ñett pour yaatalaat euh, mbànd bi nga xam ne muy bassin bu Kër Niang bi nga xam ne juróom benn station bu ñu pompé ndox foofu lañ koy yóbbu donc bu ndox mi bëree nag ba ëpp loolu moo doon indi muy débordé te comme Touba amul géej gu ñuy yóbbu ndox mi faaw ñu wut ay bërëb yu ñuy yóbbu ndox mi moo waraloon ñu dem ba ci Daaru Raxmaan am fu benn bassin bu mag boo xam ne ren bi ndox mi bëree débordé na ba dugg ci tool yi def beneen bassin bu jëm Pofdy loolu it liggéey nañ ko waaye xam nañ ne doyul ndax bu ndox bëree ak dëkk bi ni mu toll laaj na ñu am beneen taxawaay moo waral ñu def bassin bu bees boo xam ne mu ngi ci kër kab juróom benn fukki hectare loolu am ci Sénégal bassin boo xam ne juróom fukki hectare la pour di taataan ndox mi ndox mi jóge Touba jaar Kër Ñang jaar Daaru Rahman jaar Pofdi waaye itam ñu ubbi beneen bu bees boo xam ne moo nekk Kër Kàbb kon lii ay liggéey la liggéey nag dafa àndul ak wax waaw nit tam buy liggéey dañ ko war a encourager war a encourager waaw góor ndax moom gën a farlu ci liggéey gën a dolli waaye nag Sénégal tam ni mu bindoo ala kulli dañu nangu rek def yàlla wàccee waaye daal nga xam ne liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def fii ci Touba ak ci Sénégal du ma si wàññi lenn loo xam ne euh, doomu aadama dina tax ndax li sama ngeenel moy euleuk parce que vous fi yalla di jëlé ñu xamné ne andi réew mi Vous sout fouf fa ko Vous lool rek la ci wul ci li dess nak keneen ku mëna a ñëw mën nga Vous ak sax yu ko yalla Vous kon vous bi ma ngi lay bu baax forage itam nañ ci yu bi ak euh, Ngabu ak euh, Bobo Boborel Boborel amna am na tam bu ak Madlabul Fawzayni boobu mom tambalina donc loolu yeb dañ koy def rek ngir fi deuk bi tollu ak population bi dafa laaj deug deug taxaw taxawu bobu tam mënul mënul arrêter parce que bo arrêter rek mo andi galankor donc dañuy fardi continuer toujours ci liguey bi ngir euh, population yi ngir deuk bu tollu ni dëkk bu tedd dëkk Sëñ Tuuba euh, ñu mën ko taxaw taxawaay taxaw bi war loolu ci laa nekk di la sant nag di la gërëm di la waxit nga continuer di ñaanal Sénégal yàlla wàcce fi xewul wàcce fi jàmm euh, Sénégal jëm kanam loolu ci gàttal moo doon kàddu yi ma bëggoon yëkkati si turu réew mi yëpp nag ndax moo ñëwee tey dama indi ziara Sénégal yëpp mm-hmm. ci tànk boobu laa fi ñëwee euh, di la ndokkali si bés bu màgg bi ñuy waajal mu màggal di la sant di la gërëm cant ak ngërëm goo xam ne amul àpp di la di ñaan suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sa porte parole suñu Basiru di sant sa rakk yi fi nekk ñoom ñëpp ak njabootu xaadimul xadim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf président